jàppale gars yi seen bëgg-bëgg mais tey pour la première fois dina xam ne Ousmane Sonko il est fier de nous parce que xoolal lii nekku fi de waaye xoolal réussir nañu mobilisation bi alors je dis bravo à tous les jeunesses bravo à Pastef bravo jigéenu jigéenu Pastef yi talaa tey ndeer waa ñoom ñoo ngi ne leen waa xale yu yaru yu baax yu rafet yi bilaay Sénégal ñoo fi gën président. waaw ah, léegi la foule bëri na waaye. ah mbooloo bu jéggi dayoo mbooloo lim bu takkoo takkoo ñu ngi nii. Sonko lay bañ a dégg defar ko dégg Sonko lay bañ a dégg defar ko dégg waaw. yéen ko noonu ah combat taxaw na fii di Grand ngi saafante ak askan bi yéen a ngi gis noonu combat bi taxaw na. kon mbokk yi Dakaractu yéen a gis noonu c'est la caravane de la gis ngeen mbooloo bi gis ngeen ful daanaka depuis bu ñu duggee di di Grand Yoff mbooloo baa ngi nii askan baa ngi gis ngeen ambulant gis ngeen riverains yi ñi nga xam te ne ñoo fi dëkkee gis ngeen accueil bu ñu réservé lii di caravane coalition Diomaye mbooloo bu takkoo takku lim bu takkoo takku daanaka. Sonko ngay dégg. Grand Yoff ah église bi ah Grand Yoff combat jakarta La

kàddu bi benn la Sonko mooy Diomaye Sonko mooy Diomaye looloo bi dañu wax ndaw ñi ñu leen jëli carte d'identité yi moo jàpp solo carte d'identité yi na jëli yéen a gis noonu waa jooju a ah, déguisement bi ah gis ngeen déguisement bi am na solo lool. Fadil gis ngeen nu mu solo Daouda Fadil. Ah, li ñuy dund jamono gii. c'est ça ko mën a tuddee. effectivement xaw ma stratégie politique la wala. waaw waaye wolof Ndiaye dane ku dee ci marché yaa tàggee sa bopp. ndaxte marché ku nekk depuis ñëw. marché bi day bëri mbooloo. waaye réew mu bi ñëpp bàyyi seen liggéey. Ah. topp la coalition Diomaye président lu

gaa yaa ngi nii gaa ngi nii mbooloo baa ngi nii gis ngeen mbooloo baa ngi nii mais daa ngi ñu ngi yuuxu Sonko Sonko mooy Diomaye ngeen dégg daa Sonko balcon ấy gang sân khấu à sân khấu ngeen ñu ngi depuis 10 heures fële paa bi ak quarantaine paa bi ak quarantaine moo jël waa ji fii dem la ñeen carte d'identité yi coon yi du ko jëlee carte yi koy jël dem la ñeen yoon la ñëw dañuy xuus jàll bi allez allez jël côté Ousmane Sonko bi allez allez jël waa jàngoo ko côté Ousmane Sonko lii fii Grand Yoff gis ngeen mbooloo mi génn nañu maanaam di lii di saluer lii di wane seen ci convoi bi daanaka depuis 10 heures a ngi gis maire yi xale yi paa yi ñu ngi topp convoi bi dox ñii di daw depuis 10 heures dañ génn fële ci kër Ousmane Sonko fële ca cité Keur Gorgui jaar Liberté 6 jaar VDN ba jaar rond-point Liberté 6 si barte bi ñëw fii Grand ci seen mbooloo bi ci seen ah, di dem ba caravane ah de la coalition Diomaye war a def les 19 communes war a jaare Wakaam war a jaar Grand Dakar Gueule Tapée Fass Colobane war a jeexee fële ko takku daanaka mooy accueillir lii di combat bi daanaka même constat la nit ñi dañuy génn ñi seen balcon ñi seen terrasse ñii di yuuxu seen bopp aaju. ndeysaan yi dañoo kontaan ndeysaan yi moom vraiment on est fier quoi ñu ñaan yàlla débuté campagne bi si jàmm waaw bari na moom parce que ñoo ngi ñaan rek ku man ku man génn na nga génn. bu mënul góone tamit am nga beneen moyen nga tasaare projet bi partagé programme bi ku nekk am na beneen moyen boo boo boo defee campagne bi quoi xam na ne nag dina métti si ñenn ñi mais nag c' est le projet qui demande quoi xam nga c' est le Sénégal. Sonko réew mi Sonko ko moom jël nañ deux voies jël nañ pont dem rallier parcel. ñu ngi rallier parcelle gis ngeen convoi bi mbooloo bi convoi gi génn ñu ngi si deux voies yi jëm parcelle le convoi accélère le rythme la cadence ñu ngi koy accéléré ñu ngi dem gis ngeen mbooloo bi ci kaw pont bi gis ngeen convoi bi Grand Yoff jëm parcelle gannaaw bu ñu jógee Liberté 6 jaar Sacré-Cœur jaar Védène jaar Mermoz ñu ngi fii jëm parcelle ci kaw pont bi pont Sénégal 92 pont Sénégal 92 fii nag berté bi war fi jaar aussi kon ñu ngi ci kaw pont Sénégal 92 war a nga xam te ne le maire Jamil Sané moo ko jiite yéen ñu ngi taxaw ci kaw oto yor drapeau Sénégal nit ñi ngi dox ba léegi ah kon donc la coalition Diomaye Mustafa. ah yéen a gis noonu ful de la coalition Diomaye président waaye Diomaye gis ngeen ful wi nu mu gis ngeen mbooloo bi ni ko candidat bi buñ si kaso yi mu lu lu particulier lu historique une première fois dans l'histoire politique du Sénégal ñu am un candidat dans les lieux de la nation, un candidat qui démarre sa campagne alors qu'il est en prison un candidat qui réunit une foule une extraordinaire immense depuis le départ de la caravane depuis depuis daanaka ci kanam mbooloo bi mbooloo bu takku takku ci kanam ci ginnaaw gis ngeen mbooloo bi ci kanam ci ginnaaw mbooloo bu takku mbooloo bi ci kanam mbooloo bu taxoo taxu yéen a ngi seen noonu foule immense ah, une forte mobilisation extraordinaire ah, alors que le candidat est en prison mu doon lu extraordinaire ñuy dund depuis bu ñu génnee cité kër góor gi gis ngeen mbooloo bi ah, je le rappelais tout à l'heure c'est une première dans l'histoire Sénégal ñu am candidat boo xam te ne tabb nañ ko mu war a jogante ci élection présidentielle bi wala war gis ngeen foule bi gis ngeen coalition bi gis ngeen yi ñëw rassemblé wu tàmbali lii di seen campagne tey dimanche tàmbale ko caravane war a sillonner les 19 communes de la ville de Dakar ñu ngi génnee Grand Yoff ñu ngi si sponsor Sénégal 92 jëm fii di parcelle parcelle nag di leader kii di seen leader kii di Jamil Sané si nekk aussi euh, leader si Pastef moom rek mu nga xam ne moom mooy maire Pastef kon donc aussi ñu euh, ngi noonu yéen a ngi seen nan convoi baa ngi dem ñu ngi woy euh, daanaka moto ñii ñoo ngi dox depuis 10 heures ñii ñoo ngi daw ñii ñoo ngi dox ñëw rek ànd ak convoi bi góor mag ak ndaw góor ak jigéen ña Sonko namu na ñoom amul maya amul xaar carte yi xëdd dem rangi ku ñëw imam bi wala imam sokolo ku ñëw yo gaay ñu jité la fajar donc euh, ñu nek ci campagne électorale mu tambali euh, demb euh, vendredi samedi ci vendredi samedi gis ngeen candidat dem nañ enregistrer aussi sen temps d'antenne campagne bi nak mu doon contexte bu particulier ndax ci wéru koor lañuy def campagne wéru koor c'est pas évident nous hein, ñu war campagne 12 jours de campagne donc nous euh, une campagne aussi euh, extraordinaire dans le contexte bu mettez amee ci weeru donc mu campagne boo xamante day selon le code électoral campagne 21 jours la war campagne de 12 jours un un contexte particulier un contexte exceptionnel moo ñu 12 jours gis lu jot a xew balaa ñoo am date bi gis ngeen yéen a gis ñu ngi wéy di dem ba léegi gis ngeen ah, convoi bi si kanam nan gis ngeen mbooloo bi ci kanam ci ginnaaw da ngeen naan si kanam moo gën a ëpp wala ci ginnaaw moo ëpp maanaam c'est la caravane de la coalition Diomaye leader yaa ngi fii gis ngeen fii kii Mari Sagna gis ngeen fii Malick Ndiaye gis ngeen fii Aminata Touré gis ngeen fii Mamadou Lamine Diante Moustapha Guirassy gis ngeen ah, ah, Dame Mbodj gis ngeen kii di Ayib Daffé ils sont tous là à Sy gis ko depuis pratiquement 10 heures au niveau de la cité Keur ça s'approche la victoire. la victoire s'approche la victoire au premier tour s'approche donc ni victoire la nous 65 au premier tour. Saa Wolof. waaw maa ngi leen di ziar. tey moto nga yor moto. waaw non moto laa mas man man yu yomb yooyu nag. waay waay waay na ba na ba pare lii mooy Sénégal. Sénégal Diomaye moo ko mën a gañe. Sénégal réconcilier ak boppam. parce que li fiy naqar li fiy li fiy li ci seen kaw la dal. kon jomay fay moy symboliser la justice mo am ci rew séparation de pouvoir ci nga démb sen sen sen seen programme bi dafa wane ne jël na lepp lu mu jëlutit on est ivoire pour xol nit ñi ñew ñu and défar Sénégal lool mo ci nek mbooloo bi bëri non waaye non dara sax. <laughs> ah mu nekkoon saa wolof. yéen a ngi gis noonu ba léegi bi gaa yaa ngi daw. iko ko topp ngi seen noonu convoi ba léegi ñu ngi wéy war a dugg biir parcelle ñu ngi ci pont Sénégal 92 depuis un bon moment yéen ngi gis convoi bi génn Grand Yoff jaaroon Liberté 6 rond-point ah, Liberté 6 aussi Liberté 6 extension VDN ba gis ngeen convoi ba léegi mi ngi wéy gis les gens sont là sont sortis massivement fu ñu romb rek ci terrasse yi ci balcon yi nit ñaa di acclamer lii di ah, foule de lii di convoi bi lii caravane